Mhm. sëñ Abdou daal di reete loolu. Mhm. rak rek moo ko wax ak maanaam du détendre atmosphère. Mhm. dogu doguma la élage eh, moo tax sànq Serigne Mansour Sy Djamil ci ay CD mu ngi mu ngi utiliser benn baatu tubaab ci ci amabilité wu ku ku baax ki fi bàyyi ko. Euh, euh, un homme très aimable. mais mais mais gis nga il avait un mot pour tout le monde. mais li gënoon a jafe nag El Hadj Assane mooy wàcce boppam bi mu wàcce boppam ba maase képp ku ay magam jur. boko ko sen seen Babacar Sy Al amin day wax no ki sama collaborateur c'est te mooy bàyyam mhm. boo ko fekk seen Moustapha c'est la même chose man fekkee na ba tàyyi mu ñëw pour seen Babacar Sy Mansour xalif general de Tidane mais boko ko gisee soxna Aïda euh, ñooñu nga xamni ay rakay jigéenam lañu da nga nan ki du sen pa Malick mhm. fexe nak ba maase ak parce que nit bala ngaa mën a da ngay maase ak ñëpp mhm. boo maase ak ñëpp ngay mëna waxal deug la mais geste bu fort bi ma lay waxal El Hadj Assane boo xoolee sa archive di nga ko ci gis. di sëñ Babacar Sy Mansour toogee ci xalifa bi. mu toog nii sëñ Maodo toog nii ñu jàppandoo seen loxo yëkkati. dëgg la mais image boobu. askan keroog keroog yaram daw na. keroog képp koo xam ne da ngaa bokk ci askan wi ak ci famille bi. image boobu war nga koy teg sa kanam bala ngay jëf ak bala ngay wax. billaay dëgg la dëgg la. te El Hadj Assane. addina bi dafa jeex. waaye nit ñu baax ñu joxe nañ ay modèle bataille. xoola boobu geste rek. dëgg la yëkkati ko. Mhm. beneen geste bi mu def mooy sëñ Cheikh unificateur. li sëñ Pape Malick dem ànd ak sëñ Babacar Sy Mansour ca jàkk ca jumaa Seydi Hadji Malick. Mhm. sëñ Maodo ànd ak sëñ Abdoulaye Al Amin ci jumaa sëñ Babacar. Mhm. symbole de solidarité boobu de cohésion boobu. dëgg la tey jii lañ ko war a gën a mën a dundal. ndax élément yu ko mën a dundal ñëpp a ngi ci. taalibe yi nañu delloo ci seen xel ci ànd. am na solo. ñoom delloo seen xel ci njabootu jàmbur. Mm. kenn du caaxu wala nga jëf ci. lu safaanoog ñoom la du bëgg. dëgg la dëgg la. jërëjëf El Hadj uh-huh. addinaa ngi noonu kon nan ko ñaanal yàlla ko àjjana amiin la dëgg la ndeysaan ak sëñ Babacar si Mansour ak mm-hmm. sëñ Babacar si Abdou mm-hmm. ñoom ñëpp ñu leen di yaat yàlla na yàlla xare ko àjjana te yéesal yërmande amiin Mbaye jërëjëf maa ngi nii dem Tivaouane nag liggéey bi nga xam ni RFM mm. ak TFM dañ ko fa war a def incha allah ci lépp loo xam doon ko foora jàll dëgg yoonu jàmm yoonu jàmm Abdoul Aziz ñu lay gërëm bu baax di la sant jërëjëf jërëjëf Mbaye euh, Oustaz Ndiaga ñu ngi may wax ni ma am nañu kilifa keneen li ci mhm. euh, li ma la doon wax ci modestie ak signé pacte mhm. Oustaz Mor a ngi ma koy envoyé message léegi xam nga xalifa la mhm. Ah. mais mais utiliser wu ko. dëgg la ñu bari sa boo xëy dañ ci la seen xel soog a daw. Ah, ci lañu doon xam ne doon na xalifa sëriñ Babacar. Mm-hmm. ndax moo ko fi nekkoon. dëgg la waaye mosoo dégg ci waxam. Mm-hmm. mu ne maay xalifa sëriñ Babacar. Mm-hmm. diiran lim ko nekk. dëgg la waaw ndax bi sëñ bi sëñ Abdou nelawee rek moo fi xalifa sëriñ Babacar. xam nga mën naa toog ca këram woote ni xalifa baa ngi nii. parce que ku sa ku sa wéy jur dem ñuy doonante ba mu yegg si yow da ngay loolu waaye mm. pacte ba mu signé woon ak Serigne Cheikh ni ko taalibe laay doon ci kër gi taalibe laay doon ci yow mm. loolee la doxal alhamdulilah jërëjëf xaaj naa eh, euh, ci joxal Serigne Moustapha ci laan mm-hmm. euh, sëñ bi si ñu ngi lay ziar yàlla yàlla mu ziar bi ngi lay ziar si ñu ngi jégalu ci waaw jërëjëf si Malick déedéet yàlla yàlla nangu amin amin yaa rabbi bisimilah ñu ngi lay jaare liñ bokk ñu ñëpp جربات على إيه. الحاج عبد العزيز إيه. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون كون يملين كوي جالي موي مبوك مباخ دي مبوك مودس مبوك مواك بوبام ما نجي فاتليكو بوبا اي ندولا ني واي مو ني فيتو نك حاج مالك مولو booba xaaj Mouhamadul Mansour mu mag moo daan wax duut ndaw ak wala sëñ Njóob ñang imaam yóbbul sarax yàlla ak imaam imaam Malick ci sëñ Babacar booba alaaj Mansour ak sëñ Babacar sarax yàlla ngay wooye fa tabarakallahu mu nekkoon mbokk mu baax nekkoon sama xaritam teg ci fa tabarakallahu jiidalu dara ci boppam def def boppam taalibe def boppam <clears throat> rakk joo xam dafa dëkk dafa dëkk ci ay magam ci mm. leen déggal leen fa tabaarakallah déggal leen lool euh, man na sama xarit la woon ah, xanaa lii moo neex yàlla mm-hmm. mm. yàlla nee na ma nattu leen dëgg la wala nablu wan nakum bi min al xawfi wal ju'i yàlla naa leen nattu mm. ci ragal wa ndax ak wàññi alal wax sama laaj nga béy ba yaakaar mu yéeg mu jël ko. ñooñu nag yàlla yi la asabatu musibatun yàlla bu bu bu loolu leen loolu dalee day naan inna lillahi yow kat yàlla ci yow la ñuy dellu ci yow la ñuy jógee la ñuy dellu. Mm-hmm. Euh, ñàkk nañ mbokk mu baax. Mm-hmm. ñàkk nañ xarit bu baax. Mm-hmm. diine ji ñàkk na mbokk mu baax. dëgg la tarika bi ñàkk na mbokk mu baax. Euh, kër Cheikh Al Hadj May ñàkk na mbokk jullit yëpp ñàkk nañ ko. Euh, fa tabaarakallahu ñu koy.